c'est c'est comme ça quoi parce que le problème du Niger là je pense que c'est un problème de la gestion du pouvoir. Mm. c'est ça le grand problème et ce qu'on souhaite li ñuy souhaiter mooy pouvoir bi ñu gérer ko démocratiquement kon chaque fois bu amee coup d'état moom xam nga ñëpp a koy ŋàññ. suñu sañoon militaires yi dañuy rester ci seen caserne yi. wax dëgg yàlla garantie sécurité frontière yi ak yooyu wante duñu ñu dugg ci affaire pouvoir bi mais buñ ci duggee nag dafa am lëf bu fekkee ni civil yi ñi gérer mënuñu gérer ba mu am crise ah loolooy tax ñuy intervenir je pense que yéen a ngi koy wax naan qu'est-ce qui se passe au Niger loolu c'est un problème ça c'est les Nigérians qui peuvent l'exprimer su fekkee ni militaires yi jël nañu pouvoir ba pare te amul une levée de bouclier du peuple ñëpp d'accord ñu ci mu am ñu ci kii ça signifie qu'il y a quelque chose donc euh, la position de la France bon on comprend la la France et ses anciennes colonies toujours c'est un problème d'intérêt on on n'y revient pas les États n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts donc je pense que pays yëpp li ñu war wax mooy partenariat gagnant-gagnant parce que yëf yi dañuy itam wuute ni mu la gisee rek la lay ëwale ah. mu mm-hmm. fekkee tam ah yore nga say ressources ba pare gérer wuloo ko bàyyi keneen di ko gérer vraiment euh, yow yaa am sa tort. Mm-hmm. et je pense que la France aussi ah day jouer rôle am rek intérêt am lay joue ñun suñu chef d'État yi ñoom ñoo am maanaam fulla de ah. parce que jeu la boo poussé pion nga pousse pion boo waxee ni lii la négociation tu le négocies à ton avantage. à l'avantage de ton peuple. mais bu fekkee nag yow nag euh, euh, xamoo ni yow euh, le pays là c'est sous ta responsabilité. waroo xool sa intérêt ak dessous de table yi ñu lay jox ak avantage yi nga ci am parce que il faut le dire c'est ça qui fait que nos pays ne se développent pas parce qu'on a tout pour nous développer. des ressources humaines et des ressources matérielles. Malheureusement, nous n'avons pas encore les dirigeants vraiment assez conscients pour xam loolu